jërë jëf mbokk yi yéen ñu baaxoo di ñu topp ci info 15 point com euh, comme ni ñu ko baaxoo di defee alxamis bu jot ñu dellu si ak yéen ci seen émission 15 minutes pour convaincre tey nag ñu am mbégte di dalal ki nga xamante ni mooy bas Nouhoum lii bokk euh, ci mouvement bi nga xamante ni mooy la mouvement ndam euh, moom la ñu fës yéene séqal waxtaan tey ngir fës a yéene waxtaanee euh, situation politique bi nga xamante ni mu ngi ci yëmbal noor département bu yees bii di Kër Massar ak itam ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci ay armeer fële nga xamante ni mooy ci diwaanu yëmbal laataa ñuy sóobu nag ci biir waxtaan bi dañ koy bàyyi rek mu daal di nuyoo su ko defee bu ñu parewee ñu soog a dugg ci biir waxtaan bi Bas ñu ngi lay ñu bàyyi la nuyoo ak ñi ñu topp Cheikh man lay fay euh, di la remercier d'abord par rapport ak invitation bi euh, day doon euh, mbégte ak kontante ñëw dellusiwaat fii ci Info 15 mu doon site boo xam ne nii dañ koy suivre et aussi étant jeune je pense que dañ leen di encourager aussi féliciter leen je pense que président de la République nu mu créé quinzième région au niveau du au niveau ci ci ci biti ci diaspora bi yéen tamit aussi noo ngeen créé. et boo xam ne aussi euh, mu dem ci diaspora bi donc loolu aussi la leen di encouragé di leen félicité merci beaucoup. voilà ñu gis euh, ngeen nekk fi nga xamante ni mooy ci diwaanu yëmbal am na sax ci mouvement boo xamante ni yéen a ngi ci di yëngu di ci liggéey ay jamono boobaak léegi ñu di leen gis muy le mouvement Ndam euh, Ndam ki ko jiite di ki nga xamante ni mooy Matar Diop bu ñu gisee li nga xamante ni nii ñoom ñu ngi koy doxal dafa mel ni seen yéene mooy uutu ki nga xamante ni moo fi ne di Daouda Ndiaye. waaw effectivement xam nga ñun d' abord balaa mouvement bi sax si parti politique la ñu bokk muy APR ñu bokk ñu ñu sos APR mais dafa dem ci jamono euh, ñun ay jeunes dajaloo ne il faut ñu am benn candidat au niveau de la commune de Yeumbeul Nord soo gisee ñu ne il faut ñu am candidat parce que dañoo dem seet monsieur le maire Matar Diop mu doon koo xam ni jàmbaar la ci biir parti bi mais aussi jàmbaar la ci Yeumbeul xaarul dara à chaque fois. day taxaw pour jàppale askan bi donc ñun aussi étant des jeunes nekk ay politique ñu jàpp ne candidat idéal pour commune Yeumbeul Nord euh, Matar Diop doon ci loolu ñu créé benn mouvement mu tudd ndam parce que soo xoolee ndam sax c'est nouvelle dynamique autour de Matar pour l'émergence donc lépp rek ça tourne autour de l'homme de ce responsable jàpp nañ ne kooku moom moom ñu doy ba war ñu war a mën a jàppale ko ba mu jël mairie bi ba mën a ñu war a mën a changer xar kanamu Yeumbeul laataa may avancé sax ci ndam boobu laa yem euh, ndam yaakaar naa sax dafa mel ni fii ci Kër ma saar am na beneen mouvement bu fi tudd ndam yéen da ngeen kaa toppandoo wala bokk moom moo leen si jiitu. non kon de mooñ mooñ toppandoo parce que tey yow journaliste nga soo defee ay investigation nga xam ne tey suñu nee ndam ba ci département ba ñu nekkoon sax. ba tey saa suñu gisee duñu jaar suñu tur ndam la ñuy woowee donc soo xoolee même les les significations ñoo xaw ma exactement seen signification lan la mais soo xoolee seen signification rek ak ñun suñu bos ba mais loolu je pense que yàqul dara je pense que nit sooy def lu baax ñeneen gis ko di ci nekk aussi loolu kontante la mbégte la lépp rek ci jëm kanam la saabu veut dire ñun lu ñuy def baax na képp koo xam ne aussi gis na ni lu ñuy def baax na mu bëgg kaa copier dañ koy encourager aussi di ko mu mu jëm ci kanam. Euh, ki nga xamante ne mooy njiital ndam di monsieur Matar Diop ab diir a ngi nii ñu di ko gis euh, mu am ay activité yoo xamante ni mi ngi koy mëne mais loolu lépp euh, ci jàngat mën nañu ni comme ni ñu ko waxee léegi da koy def ngir yuutu li nga xamante ni mooy mairie bi waaye nag ngeen bokk ci parti comme ni nga ko waxee léegi muy parti boo xamante ni njiitu réew mi Macky Sall moo ko jiite à chaque fois moom mooy tànn jamono ji bu ñu xoolee Matar dafa mel ni moom dafay def ay jéego ngir ut benn lobbying ngir jéem a gagné confiance u Macky Sall bu ñu xoolee dafa mel ni loolu la nekk di def Euh, mënuma kaa tuddee lobbying Matar lu muy def mooy liggéey parce que président bu ñuy ànd ak moom daf ñoo daf ñoo jàngal lenn mooy le terrain encore le terrain te soo xoolee ndam bu ñu ko créé ba léegi ci terrain la nekk te ñun lenn rek moo ñu moo bof mooy suñu lignée mooy lignée président de la république Macky Sall parce que ñun on est des Macky dañ koy wax fu ne donc ci loolu lañu nekk depuis bu ñu créé suñu mouvement ndam bi parce que jàpp nañ ne le lu mu wax ci lañ nekk démb. aussi nekk ci tey di continuer di ci nekk te président loolu la gëm tey soo duggoon yëmbal def proximité di nga xam liggéey boo xam ne ni liggéeyu terrain boo xam ne ni ñu ngi koy def euh, au moment où yeneen responsable ku nekk mu ngi toog këram wala keneen ak keneen mu ngi toog këram donc loolu la président gëm président am na les informations je pense que le moment venu incha allah liggéey comme olof lu muy wax rek ah ku. pour ñàkk jëriñu te ñu ci lañ nekk ci lañ continuer di nekk et ci lañu continuer parce que lu ñu ëppal solo mooy euh, la population de Yeumbeul Nord donc lépp loo xam ne mun nañ ko pour population Yeumbeul Nord gis seen bopp gis seen bopp ci président ci nguuru président ci lañ nekk te président aussi loolu la gëm comme que loolu la gëm aussi ñu nekk ci ligne euh, ci biir APR bëri ay responsable yoo xamante ni ñu ngi fa euh, surtout ci côté Yeumbeul noor est-ce que seen njiit mi ngi am ñoo xamante ne nii mi ngi jéem a waxtaan ak ñoom ngir fexe booloo ak ñoom ba mën a am confiance Macky effectivement sama benn part da ko wax politique euh, dañ koy compter ku yokkul nag yaa wàññi je pense que au-delà même euh, responsable yooyu je pense que amul kenn koo xam ne nii peut-être réeroo nañu ak moom parce que ñu lu ñuy def liggéeyal président te képp koo xam ne ni président nga gëm ci lu ñu nekk aussi dañu suy fekk ci te am na ñoo xam ne ñu bëri manifester nañ peut-être le moment venu incha allah euh, di nga gis ñoo xam ni peut-être ils sont dans l'ombre ñu ngi liggéey et on à travailler dans ce donc loolu mooy gëm-gëm bi parce que nit euh, soo liggéeyul la kenn du la topp te ñun si loolu lañ nekk donc aussi loolu damay permet damay permettre damay permettre l'occasion may woo ñëpp muy si ñu nekk si ñun ñu nekkul si ñun képp koo xam ne nii yëmbal ak moo tax a jóg émergence yëmbal moo la tax a jóg dañ lay woo nga ñëw euh, rejoindre le mouvement ñu liggéey pour yëmbal pour émergence yëmbal. mais nag est-ce que dina yomb koo xamante ne nii mi ngi fi ñu wóolu ko teg ko fi muy def ay résultats euh, ñu daal di koy soppi indi keneen. waaw boo ne woon résultat nga jox ma ay résultat en ce moment mun naa la wax euh, peut-être euh, mun naa la tontu positivement mais man tey soo demee suñ demee ba taxaw c'est parce que dañoo gis ne résultat amul parce que ñun yëmbal lañ nekk yëmbal lañ juddoo yëmbal lañu màggee lépp yëmbal lañu def xam ne yëmbal fu mu nekkoon ak fu mu nekk tey dañoo jàpp ne bilan amul résultat amul moo tax ñu war a mun a samp suñu suñu dënd maintenant nag président am na lu mu fa def loolu loolu kenn du ko naatable muy Promoville mu ci inondation muy leneen ak leneen loo xam ni président de la république moo ko def def ko ci yëmbal ñu koy contenté aussi di ko sant loolu ci président de la république mais jàpp nañ ne ñun soo xoolee même le projet de société bu ñu nekk di bind parce que jàpp nañ am na lu bari mu ngi ci yëmbal dafa war a changer te ñun ku ñu jox mairie bi incha allahu rabi avec l' équipe parce que jàpp nañ ne bi du benn nit mooy mooy mooy gérer jàpp nañu commune c'est une équipe et équipe boobu macha allah ndam am na ko parti bi am na ko te incha allah suñ jëlee élection suñ jëlee euh, gagné élection yi incha allah dinañ mën a dérouler suñu programme. voilà ma bëggoon nag léegi nga daal di ñuy defaral li nga xamante ni mooy benn bilan ci maire bi nga xamante ni moo fi nekk di Daouda Ndiaye. waaw man je serais mal placé def bilan parce que man nee naa la bilan amul. man bilan bu ma war soo ma laajoon bilan président de la mu def yëmbal nord mun naa la ne def na fa Euh, Promoville ñëw na fa def na fa ay tali karo président def na fa indi na fa ay lamp lampadaire président inondation yi mu meloon melatul noonu président moo ko fa def. seemi ak yeneen yooyu yëpp moom moo ci jàpp di ci xeex ba yu mel noonu daal ñëw taxaw. non amul jàpp yooyu ça vient directement des des des ministères maintenant nag soo duggee ci kër peut-être di nga jaar par la commune mais ñun lu ñu bëgg mooy euh, un bilan boo xam ne dañuy wane ni lii commune bi moo ko fa def loolu peut-être. Euh, man je serais pour wax ko mais ñun xam nañu président lu fa def xam nañu lu fa nekkoon te xam nañ suñu kéemtalaay kattan tey suñu amoon la commune am na lu bëri loo xam ne nii dinañ ko changer au niveau de la commune am na lu bëri yoo xam ne nii am nañ mu ngi suñu programme et on va le jour J wala avant boobu dinañ ko présenter la population yëmbaloise et ñoom dinañ apprécier incha allah donc ma la déggee danga nga bëgg wax ni durant Daouda Ndiaye toog fi ak léegi euh, muy maire bi nga xamante ni moo fi nekk jamono ji amagul lenn loo xam ne liggéey na ko non du ma ne amagul lenn lu mais fu ñu bëgg eggal yëmbal fu ñu bëgg eggal yëmbal eggalu fa loolu j'ose le dire parce que man euh, wax naa ko euh, am na loo xam ni fekkee naa ko am na loo xam ne dund naa ko ak moom mais fu ñu bëgg mu egg yëmbal avec les moyens yoo xam ni am na ko eggu eggu eggu fa eggu fa yëmbal te ñun xam nañ ne le potentiel boo xam ni commune yëmbal noor am na ko c'est-à-dire que aujourd'hui avec l'acte 3 commune yi am na loo xam ne lu bëri mun na ko war na ko mën a euh, war na ko mën a dérouler malheureusement amu fa gisuñu ko. teguñu suñu bët parce que ñun lu ñu gëm ci bilan mooy un bilan concret loo xam ne dañ ciy teg suñu bët ne lii inauguré nañ ko ñu loolu lañ gëm ci ci ci bilan parce que au finish loolu mooy bilan en fait. donc mais loolu soo koy wër ci département bi moo xam muy département bi ñu jógee Pikine ba mu daj du yomb nga gis ko. waaw mais man je serais très bien placé nag tey soo ma laajoon parce que je suis aussi chargé de com au niveau de la ville de Pikine. te loolu dinañ si ñëw ci kanam dinañ ci ñëw laataa ñuy sori mais mu mel ni euh, ki nga xamante ni mooy le maire actuel di Daouda Ndiaye euh, ci ay waxam bëri na lu ñu koy faral di dégg muy critiquer bu baax a baax ci di seen njiit donte ni sax léeg-léeg du ko tudd directement mais di nga xam ni carrément moom lay waxal surtout ci sortie bi nga xamante ni moom la mujjee def. mu xam le ni ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy jéem a maanaam bëgg a wane seen bopp moo tax ñuy jéem a taxawee benn taxawaay bi mooy ñi nga xamante ni ñoo bëgg a yàq APR yow naka ngay jàngatee wax boobu. waa xam nga tey euh, nit fu nekk da nga libre euh, di di di apprécier wala di di am nooy waxee mais jàpp naa ne ku nekk yëmbal noor xam bu baax la mooy la mouvement Ndam am na dinañ xam ne am na fu mu fu mu fu mu fu mu nekkoon am na aussi fu am na foo xam ne aussi egg na fa peut-être euh, mouvement mouvement Ndam commence à déranger wala peut-être le maire Matar Diop commence à déranger par rapport à ses par rapport ak euh, sympathie boo xam ne mu ngi koy gañ ci population bi par rapport aussi ak terrain boo xam ne mu ngi koy gagner ci population mais lépp rek soo gisee lu ko waral mooy liggéey boo xam ni mu ngi koy def si le sur le sur le terrain et incha allah parce que jàpp na ne moom mooy adversaire am boo xam ni peut-être moo ko war a mun a sonal suba te sa adversaire à chaque fois peut-être da ngay jéem a xool nooy def ba peut-être galgal ko wala jëm teg si Euh, ay baton ci roue pour mu bañ a dem mais ñun conviction la ñuy demee gëm-gëm la ñuy demee parce que noonu la ñu yoree noonu la ñu xamee noonu la ñu aussi noonu la ñu jàngalee donc loolu aussi amul lu ñu ci ragal amul lu ñu ciy tiit ku nekk nag est libre euh, d'apprécier wala wax lu ko neex mais loolu sant yàlla tey su demee ba maire commune di bàyyi xel un mouvement loolu ça veut dire que collectivité di dem ba bàyyi xel mouvement ça veut dire que mouvement boobu liggéey na mais mais jamono ji moom su fekkente ni dafa ànd ak ay leaders yu bëri yoo xamante ni ñi ngi ci biir APR euh, des leaders yoo xamante ni ñi ngi ànd ak moom est-ce que loolu du du du néewal doole kii di seen njiit di Matar. non saa ba dire que tey soo amoon information bu wérte wóor xam nga ne tey tey rek waxuma la mouvement suñu mouvement rek mais amoon am na beneen mouvement boo xam ne ni du ñu ko composé mooy c'est des fondateurs des membres fondateur du parti ñoo xam ne ni tey ils ont créé au-delà même du mouvement parce que ñooñu aussi ci parti bi lañ nekk parce que affaire bi parti la affaire mooy ambition ku nekk mën nga nekk ci parti bi am ambition loolu duñ ko bañal kenn ñoo xam ni peut-être gisuñu seen bopp aussi par rapport à la gestion du maire ñoom aussi ñu taxaw ne dañoo bëgg maire bi donc loolu aussi am na au niveau de la commune de Yeumbeul am na ñeneen ñoo xam ne dañoo préféré sax toog seen kër dematuñu gisatuñu peut soo doon suivre euh, les manifestations euh, gis ñoo Euh, am na benn recul boo xam ne ni am na ko surtout au niveau des des des responsables et aussi il faut dire am na beneen jeunesse responsable boo xam ne mu ngi génn surtout avec la jeunesse boo xam ne nii au niveau de la commune de Yeumbeul noonu ñu bokk ci parti bi doon ñoo xam ne ay kàngam lañu nekk ci parti bi aussi ñooñu ñu ngi aussi taxaw pour mun a aussi liggéeyal parti bi mais au fur et à mesure ngay gis nga xam ne am na lu bari loo xam ne ni wàññeeku na loolu de visu da koy gis au niveau si manifestation wala ci yeneen voilà ñu gis euh, Kër Massar di ab département bu yees ginnaaw bi nga xamante ni njiitu réew mi ñëwoon na fi ci jamonoy mbënn mi njëkk na fi ñëw 2016 daal di ni dinaa leen defal euh, dinaa leen indil ay dinaa leen defal département ñu di ko xaar ci jamonoy mbënd mi mu daal di ñëw daal di koy diggewaat jamono ji ñu génn itam mu daal di dëggal li nga xamante ni waxoon na ko daal di def Kër Massar muy ab département bu yees ginnaaw gi nag tendance yi daal di bëri ñu gis ki nga xamante ni nii mooy la ministre de l'économie mu mel Euh, dafa mel ni ku bëgg a jiite li nga xamante ni mooy conseil départemental bu Kër Massar ndax waa Ndam euh, pare nañu ngir gunge ko. Euh, tout d'abord da nga may permettre ma remercier le président de la République Macky Sall promesse bu mu ñu defaloon pour def Kër Massar département def na ko loolu lañ koy sant aussi di ko gërëm je pense que aussi au niveau des infrastructures gis ngeen ne aussi si inondation yi gars yi ñu ngi ci ah loo xam ne nii avancé na bu avancé na soo xoolee les derniers rek nga xam ne am na loo xam ne nii mu ngi fi. donc euh, peut-être du ma wax ci position position ndam man je vais parler en tant que peut-être basse par rapport ak question bi ma laaj mooy man lenn laa gëm man laa compétence laa gëm man damaa gëm compétence parce que euh, dañoo jàng euh, dem ba peut-être inscrire suñu doctorat am na loo xam ne nii peut-être duñ ci nekk duñ def politique politicienne ñun gëmuñu politique politicienne ñun lu ñu gëm mooy la compétence la compétence gëm nañ ne ministre su buggul woon sax ñun pour man ñun waa département Kër Massar lañ ko war a forcer pour jox ko ko. le pourquoi mooy déjà am na compétence bi am na relationnel bi ñu doon benn département bu bees boo xam ne nii am na lu bëri dañ ko soxla muy ci coopération muy ci relation te suñu nee relation ne coopération je pense que on peut pas parler autre que le ministre Amadou Hott mu doon koo xam ne aussi ku discipliné la koo xam ne nii loo ko wax mu ne la man président de la république laay déglu loolu am solo la parce que nit aussi da am njiit mu ngi continuer liggéeyam au niveau du département mu ngi jàppale ñëpp peut-être dafa feeñul rek du def ñoo xam ne luy feeñ la mais mu ngi jàppale tous les responsables te su ma sañoon wax dëgg yàlla loolu aussi je lance un appel au président de la république que mu jox ñu mu jox la coordination lu ministre Amadou parce que moom mooy doon consensus moom moo mun a boolee ñëpp ku nekk nag su la neexee nga autosaisir coordonnateur loolu ça te concerne. kon kon yow bokk nga ci ñi nga xamante ni ànd nañ ci ki nga xamante ni mooy Amidou ot ngir mu daal di jiite départ euh, conseil départemental bu département bu yees bii di Kër Massar. effectivement effectivement je pense que nëbbuma ko dama koy wax sama sama page Facebook dama koy wax fu ne parce que jàpp naa ne comme nu ma ko expliqué sànq moom moo ñu war a mën a apporter lu bëri si suñu département bu bees parce suñu département bees bi day soxla lu bëri loo xam ne nii dañ koy soxla donc man moom laa gëm. ne war nañ ko mun a apporter parce que compétence bi am na ko respect bi am na ko relationnel extérieur am na ko mais aussi am na euh, président da koy déglu bu baax a baax a baax. mais euh, nga yaakaar ni dina yomb ndax ki nga xamante ni moo jiite euh, commune bu Kër Massar di l'honorable député maire Moustapha Mbeng ci ay sorti dégg nañ ko mu ni xeex na ba ñu indil ko li nga xamante ni mooy département fii ci diwaanu Kër Massar bàyyiwul benn yoon mi ngi def ay acte di wane ni que ni incha allah rabbi ci li ñu dëgmal dina nekk candidat wala boog bëgg na ko. te itam dina gagné lii nga xamante ni mooy département bi kon ndax yaakaar nga ni loolu dina yomb ci kii di Ameth Hott gis nga man euh, lu ma lu ma nangul sama bopp Yeumbeul Nord <clears throat> moom laay nangul euh, aussi ku nekk au niveau du département de Kër Massar mooy ku nekk am nga droit am ambition ku nekk su la neexee nga ne yow bëgg nga nekk maire département loolu je pense que dama koy nangul képp bépp responsable au niveau euh, départemental mais ku nekk xam nga aussi loo mën ak loo mënul wax dëgg yàlla suñu waxantee dëgg maintenant nag surtout saisir coordonnateur je pense que loolu c'est manquer de respect par rapport aussi à nos responsables ou bien à nos coordonnateurs au niveau de nos communes mais aussi je pense que lu ci ëpp solo mooy euh, liggéey mooy liggéey mooy compétence lu ma waxoon sànq rek que peut ku nekk am nga ambition ku la ku nekk aussi taxaw ne moom bëgg na bëgg na nekk maintenant nag le fait que ñu def département Kër Massar je pense que mérite bi mérite ñëpp la mais aussi la vision du président de la République Macky Sall la parce que président moom moo am vision bi moom moo xam le pourquoi mu def le euh, Kër Massar département donc ci ay du ci ay laaj rek parce que su nekkoon ay laaj rek depuis 2016 def nañ ko depuis 2016 donc loolu aussi amoon nañ ci réponse donc donc loolu je pense que du ay argument yoo xam solo mooy su jox département ma def fi ak lii ak lii avec un boo xam ni bien défini mais pas man maa laaj lii maa laaj lii mais je pense que loolu c'est révolu par rapport aux pensées et que lu ma waxoon sànq laay waxaat on a la compétence am nañu chance am le ministre Amadou am nañu chance am le ministre Assome Diatta ñoo xam ne ni ñu ngi fi am nañu chance aussi am Moustapha Mbengue donc la symbiose de ñoom ñëpp suñu booloo je pense que doon benn mun nañu apporter Euh, dara par rapport ak suñu département bu bees bi mais man lu ma waxoon démb ak barki démb laay wax mooy le meilleur profil reste et demeure le ministre Amadou kon looy wax ñi nga xamante ni dañuy yëkkati ay kàddu parce que gis nañu ay jigéen yu yëkkati ay kàddu ŋàññ bu baax kii di Amadou Hott ak Aminata Assome Diatta ndax li nga xamante ni ni bëgg nañ ko ñëw ngir bëgg ko foqati ci seen ay loxo non amul foqati xam nga il faut faire la différence entre département ak commune commune Kër moo fi nekkoon commune Kër Massar su la neexee ñu ne par exemple la commune de Kër Massar Moustapha Mbengue mooy coordonnateur. mais le département ah, dañuy dégg dañuy dégg ba tey ci ñi xamante ni ñoo fi ne yaakaar naa sànq nii rek lañ ko mujjee liir ñi ni APR benn njiit la am fii à Kër Massar euh, donte ni sax ci ñun lu ñu xam mooy que ni comme département bu yees la euh, instance yu bëri taxawagul mais li ñu jot ci ay info ak li ñu liir ci ñoo ci li nga xamante ni dégg nañ ko ci ñoom mooy euh, benn coordonnateur moo am moo amagum ci département bi te mooy l'honorable député maire Moustapha Mbengue benn njiit moo fi am te mooy moom non benn njiit moo moo fi autoproclamé wu la ñuy wax wala benn njiit mooy commune Kër Massar moom mooy coordonnateur Kër Massar mais à Yeumbeul Nord nous on te suñu neexoon euh, par exemple Samba Demba Ndiaye c'est le coordonnateur départemental ku nekk xëcc fi ngay xëcc. il faut su ma la déggee su la déggee nga xamante ni ñoo dëkk fii ci diwaanu Kër Massar euh, comme département bi wax tuddee ko Kër Massar rek ñoom ñu jàpp ni que ni euh, actuellement loolu moo am. effectivement amalgame boobu la ñuy def moo tax sànq loolu laa ma ne entre commune ak département. aujourd'hui le département c'est trois arrondissements ce n'est plus Kër Massar c'est vrai Kër Massar lañ ko tuddee am na ñoo xam ne si analyse bu gàtt ñoom dañuy jàpp Kër Massar la ci commune ba léegi ñu ngi ci analyse yooyu je pense qu'il faut aller au-delà aujourd'hui on parle de département te commune bu nekk je pense que am na ay responsables yu fa nekk mooy lu ma waxoon sànq rek mooy unité bi mooy unité bi bof dañuy woo woote unité parce que aussi ay kilifa responsable à chaque fois da ngay woote unité femmes yooyu sax peut-être bof dañoo xamul rek mais gëm naa ne le ministre Assom Diatta le ministre Amadou Hott c'est des personnes qui sont très respectées au niveau euh, euh, du gouvernement donc ñun aussi chance la au niveau département ñu am ci deux ministres yoo xam ne nii ñu ngi def liggéey bu am solo donc ŋàññi leen je pense que ŋàññi suñu bopp la donc il faut pas ñu dem ci politique politicienne yooyu man gëwuma loolu man politique politique di de laa gëm politique ñoo waxtaan jiboo doon benn liggéey pour mun a atteindre les objectifs loolu laa gëm yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy 15 minutes pour convaincre ñuy dalal ki nga xamante ni mooy Bass Nouhoum li bokk ci mouvement bu ndam bokk itam ci fi nga xamante ni mooy parti bu APR moom la ñuy sëqal waxtaan. voilà ñu jugee ci ab département bu yees muy euh, muy ñu jugee bokk ci ab département muy département de Pikine ñu def ñu ab département bu yees muy Kër Massar euh, ci sa gis-gis ndax yaakaar nga ni que ni le fait que ñu indil ñu beneen département dina gën yombal liggéey bi ak aussi ban analyse nga am muy bilan ci li nga xamante ni mooy dépa euh, ville de waaw euh, xam nga département bu bees euh, chance la wax naa ko euh, je pense que maa ngi ko doon am na benn responsable moo doon waxal sax ñu ne soo amee département bu bees da am tribunal départemental bu bees tey loo waroon dem uti Pikine tey Kër Massar mu nga ko mu nga ko utee mu nga ko utee Kër masaar mais aussi infrastructure infrastructure de base je pense que da ciy am solo infrastructure aussi de proximité bi surtout parce que foofu lañ tollu tey ci décentralisation mooy nit lu mu soxla rek soxlawul muy daw ay kilomètres pour am ko mais day fekk juste quelques mètres rek nga am ko donc loolu ci département déjà c'est bien mais aussi wàllu investissement parce que ñun aussi yàgg nañu au niveau des Niayes di xeex pour ay investissement donc état aussi dinañu gën a gëstu au niveau départemental pour mun a investir au niveau départemental loolu aussi je pense que euh, lu am solo la maintenant nag soo ma laajee euh, bilan ville de Pikine dama ciy sawar parce que aussi je suis chargé de comme au niveau de la ville de de Pikine euh, tey émission sax man su ma sañoon émission lañ koy def entière parce que lu ñu ci mën a wax tellement que dafa dafa bari démb rek maa ngi def sama publication au niveau Facebook benn CM boo xam ne nii ah construit par sur fonds prop Hmm? par la ville de de Pikine euh, fee si Thiaroye Thiaroye sur Mer commencé na fonctionnel sax équipé entièrement équipé par la ville de Pikine tey su suba rek maa ngi jógee ci benn manifestation boo xam ne nii le maire de la ville de Pikine da doon jox 91 délégués de quartier seen i décision yàgg nañ ko xeex amuñu ko mais si moom lañ ko moom lañ ko amee si ay journée de l' excellence ci éducation toujours ci éducation ay journée de l' excellence les meilleurs élèves du département loolu le maire de la ville mu ngi koy def chaque fête de tabaski gis ngeen aussi au niveau de la ville de Pikine ay secours yoo xam ne nii day dem ba presque 200 millions yoo xam ne dañ koy jàppale les indigènes ñoo xam ne nii ñu ngi ci département bi seen loxo jotul seen ginnaaw bëri na loo xam ne nii def na ko santé bi soo xoolee les trois districts ay bloc opératoire la leen defal ci wàllu santé bi loolu loolu le maire de la ville. Euh, def na ko au niveau éducation aussi gis ngeen ne récemment ñu ngi may ay livres plus de 2000 livres mais aussi matériel informatique même si au niveau aussi euh, district euh, hôpital bu Dominique aussi ñu ngi fay may ay lits électriques yoo xam ne nii ci coopération lañ ko amee le maire de la ville aussi génnee ko di ko di ko may bëri na loo xam ne ni au niveau des organisations faîtières aussi gis ngeen ne chaque année dañ leen di jàppale muy les handicapés muy les daara muy les. daara ah da leen di jàppale aussi day jàppale aussi le délégués de quartier les imams à chaque fois mu fet mun a am muy chrétien aussi da leen di da leen di jàppale bëri na même soo xoolee au niveau de Yeumbeul Nord këru maison maison sage-femme bi aussi moom moo ko moom moo ko tabax. pourtant malgré tout ça les délégués de quartier bëri na lu ñuy ŋàññi doxalinu ñi nga xamante ni ñoo yore ville de Pikine parce que ñoom nee nañu li nga xamante ni nii waroon nañ ko di am surtout délégués yi nga xamante ni ñoo nekkee fii ci diwaanu Kër Massar euh, ñu néew ñoo ko ciy fayeeku am na ñoo xamante ni faatu nañ bu yàgg ba tey nanguwuñu leen remplacer. waaw mais loolu yëpp si si xam nga procédure la tey rek maa maa la ko wax tey si suba rek foofu laa nekkoon te alors que délégué du département sax ñoom ñoo. Euh, constaté wu ne dañoo bëgg le maire de la ville Abdoulaye Tine moo am deuxième mandat ñoom ñooy porter sa candidature ça montre aussi effort yoo xam ne nii def na ko aussi mënul parce que on parle de 400 400 délégués de quartier au niveau du département de Pikine aujourd'hui 164 am nañ des décisions je pense que aussi processus la procédure la je pense que aussi ville normalement c'est acte 3 de la décentralisation ci maire commune yi la ñu waroon dellu mais je pense que est-ce que mun na fay mu ne ko waaw mun na fay mu ne ko na ko na ko jël na jël charge yi depuis boobu aussi ñu ngi ci di liggéey et aussi délégué yi ça veut ñu ngi ciy gis seen bopp suñ demee ba ne dañuy taxaw pour porter la candidature du maire Abdoulaye Timbo c'est parce que ñu ngi ciy gis seen bopp aussi. voilà loolu sax du ñàkk beneen yoon dinañ si ñëwaat gën ko yaatal euh, waaye nag laataa ñuy daaneel rek bëggoon nañ ñëw ci benn mbir armère yi nga xamante ni moo nekkee ci diwaanu yëmbal dafa ni ci atum 2016 ba léegi bu feesul jege na ko. te ba léegi yéen ñi nga xamante ni yéen waa yëmbal jël seen suuf di jaay rek ngeen fi nekkee lan moo tax mënagu leen ci am ay saafara ba léegi. Euh, wax nga sujet bu ma bu ma bu ma bu soxal parce que yàgg naa ko alerte avant 2016 sax soo xoolee sama sama fil d' actualité page Facebook yàgg naa ko alerte parce que jàpp naa ne aussi dëkk dafa war a am armeer dëkk suy màgg aussi dafa war a am ay armeer yu bees armeer yooyu. bi créé nañ ko depuis 1876 récemment dañ ci fa def benn documentaire euh, waa ji kuy gar gardien armée duñ ko wax ne créé nañ ko depuis 1876 imaginel armée bu ñu créé depuis 1876 ba léegi ah, yëmbal noor benn armeel la am te armeel boobu la soo xoolee superficie bi su matee un hectare ci la yem malheureusement c'est un problème qui la là alerte naa wax naa te incha allahu rabi je pense que population bi ils ont compris bëri nañ ay appels yoo xam ne maa ngi koy am ay appel de soutien par rapport à sa problème boo xam ne nii mu ngi fii donc loolu aussi wax nga nag bof jaay suuf man moom jënduma jaayuma suuf xaw ma suuf bof du ma ko sax laal d'habitude man je suis naturellement naturellement comme ça parce que dañ ma koy wax ay mag dañ ma koy ne ma bas moytul suuf bof loolu laa yàgg dégg ma doon gone aussi nekk ci tànk yooyu mais yaakaaroo naa ne aussi li nga wax dëgg la au niveau de gàddaay amoon nañ fa espace boo xam ne nii waroon nañ fa mën a dagg lu mu bon bon benn hectare boo xam ne nii dinañ ko mën a réserver ay cimetière parce que aussi nit au finish mooy ñun ñëpp dañuy dañuy dañuy dañuy dee comme que aussi euh, soo deewee t'as besoin fun la fun la fun la denc avec sa dignité donc baax na suñu autorités yi di ci di ci bàyyi xel loolu aussi damay permettre peut-être aussi ma lancer appel euh, euh, le président de la République Macky Sall par rapport aussi <coughs> benn procédure boo xam ne entamé woon nañ ko au niveau de la ville de Pikine avec le ministre en charge de l'environnement Abdou Karim Sall pour les ay dix hectares yoo xam ne nii aussi waroon nañ ko mun a aménager te tey suñ ko aménager woon muy département de Pikine mais aussi département de Kër Massar war nañ fa mun a am ay simatière yoo xam ne nii des cimetières musu benn cimetière musulman ak benn cimetière chrétien mais combat bi combat wu ñëpp la je pense que aussi maa ngi ciy woo ñëpp ah maa ngi ciy woo ñëpp tey su nekkee aussi suuf gàddaay bi des na ah j'interpelle aussi le maire bu dee suuf gàddaay bi des na aussi bu nekkee mun nañ fa am espace. boo xam ne war nañ fa mën a benn un hectare boo xam ne nii pour mun faa suul aussi suñuy suñuy néew loolu aussi je pense que dañ koy ñaan ñu mun koo may pour la population yëmbaloise. voilà ñu lay jaajëfal bu baax a baax euh, di la bàyyi rek nga daal di tàggatoo. waaw euh, demal leen di contenter remercier la euh, remercier aussi la facilitateur muy sama professeur Amar mais aussi remercier sant monsieur le maire Matar Diop. je pense que euh, tey sooy suivre suñuy page Facebook gis nga ne ñu ngi étaler suñu projet de société parce que gëm nañ ne la personne de monsieur le maire Matar Diop euh, mun na changer xar kanamu yëmbal noor lu ñu gëm la euh, depuis trois ans ñu ngi ciy liggéey bàyyiwuñu bàyyiwuñu groupement de femmes bàyyiwuñu jeune bàyyiwuñu wu ñu adulte wu ñu fenn ci yëmbal noor les quatre-vingt-quatre quartiers Euh, yu nekk composé Yeumbeul Nord fu nekk ñu ngi fay dugg fu nekk am nañ fa représentant te liggéey boobu la président sant mooy def proximité bi di représent di remercier aussi toute la coordination de Ndam mais aussi euh, samay euh, camarades de parti muy APR boo xam ne ñu si bu ñu bu ñu bokk muy dama am fierté di ko wax on est des makis donc loolu dafa nekk ñu ñu ngi ci di leen remercier aussi di remercier Cheikh par rapport ak seen disponibilité mais aussi liggéey boo xam ne aussi yéen koy def au niveau du département mais aussi au niveau Sénégal parce que fu ñu dem di leen daje ak ngeen def liggéey bu mucc ayib waaw di ñaan rek site bi mu dem ba doon télé ba doon am rajo am télé tout ñu mën ko suivre parce que suñu fierté la amuñu lu gën Kër Massar amuñu lu gën Pikine